gayndey Angleterre yi warax nañu gayndey Sénégal yi démb ci huitième de finale bi doon dox seen diggante ak Sénégal ci coupe du monde gi nga xam ne ñu ngi koy amal ci Qatar dafa jàpp waa Sénégal duma leen ñetti bal ci dara ñetti bal ci dara yooyu nga xam ne duma nañ ko Sénégal tax na Sénégal démb ne woon na tekk tekkaaral ñenn ñu ci bare bari jël ko sippi ko ñi nga xam ne ay influenceur lañu ñee ca des sippi ko yenn ci sëriñ si nga xam ne ñu ngi doon njëkkati seeni kàddu askan bi koo ci dékk sab micro dafa yebbi aw sàññam jagleel ko sëriñ si naan sëriñ si ñooy ñi nga xam ne ñoo tas suñu yaakaar ñoom ci seen jëmmi bopp dañoo war a téye seenu làmmiñ waratuñoo yëkkati benn kàddu goo xam ne dañu koy jëmale ci équipe nationale bi luñ ñu waxaati duñ ko mën a gëm am na ci ñoo ndax Serigne si wax ji ñu waxoon ne Sénégal dafay duma Angleterre ñoom ci seen jëmmi bopp aw sànni lañ ci jëlee am na ci ñoo xam ne moom ay rongoñ li ñu tuur ci défaite boobu rawata nañu nekkoon ci Qatar influenceuse yi ñu fa gis ñoom ñëpp dañu ne tekk tekkaaral dañu ne wedam ànd ak di jooy maanaam défaite bi daf leen a jàpp aadamo boos dee negi bu mu génnee kenn ku ci nekk yekk na la ca musiba a doon um, a dem ci tuus ba tuus booloo jeex yéen ñëpp yéen a bu ci suñu équipe yow Bamba Dieng yow laay waxal génnal ci suñu équipe te ci ñëwati xamoo tuus ba tuus booloo jeex aadamoo yekk na musiba ak mbelengaan xam ne ay sëriñ la kenn ku ci nekk mu wax la la mu lay wax kenn ku ci nekk itam mu yekk la musiba ga mu lay yekk ba noppi itam tegal la ay saaga yoo xam ne weñ wu ca dal dana dal di dee ci gàttal aadamoo détaché na leen pièce par pièce teg leen ci suuf influenceuse ya nekkoon ca Qatar moom kañu sipp yi fi moom moo di DJ Xassama nga xam ne ñëw na fa bu yàggul dara ngir supporter gaynde Sénégal yi nee nañ ko sa dikk fii ci Qatar moo tax ñu duma ñu war a woon a ñëw Qatar danga waroon a toog Sénégal ndax boo toogoon Sénégal lii yëpp duñu ci fekk ba ñu jël aw defet defet boobu la Iliman Ndiaye sóorub Sénégal bi Iliman Ndiaye dafa génn ay rongoñam jooy jooy yu metti ndax defet bi nga xam ne Sénégal jël na ko seen diggante ak Angleterre ginnaaw defet boobu la Aliou Cissé mi nga xam ne muy jiite gaynde Sénégal yi wax na ni sama équipe merewuma leen sama équipe dama leen di encourager ay jàmbaar dëggantaan lañu donte ne xaaruma woon ñu dóor ma 3-0 troisième bii bi yaakaaruma woon ni dinañ ko jël ndaxte ba ko jëlee la ñu génn carrément ci match bi donte ne ba ñu dóoree ñaar yëf ya xawoon naa gàll gose ñetteelu bii bi ci la yëf yëpp ji terewul itam maa ngi gën gëm samay gaynde Sadio moom daal dinay joxe réaction am nee na man gaynde Sénégal yi dama leen di sant te li leen gërëm te di leen xamal ni itam bis dana jot ñu daal di jëli ndam li indil leen ko ñun dañuy gën a wéy di gën a xuus di gën a dem di gën a ut yëf yi ndaxte yëf yi jeexagul kon nag nañu daal di ànd ak da xam ne yëf yi mënagul a jeex léegi am na leneen lu des ci kanam te leneen li des itam danañ ko lijjanti ba mu indi ndam fii ci Sénégal muy nouvelle mu ngi nii bu baax ci ay sama mi journaliste la ci seen TV moom neen na Aïcha Ba bi nga xamee ay weer kenn séenatu ko ca seen TV muy présenté émission ay weer kenn déggatu ko muy wax ay weer kenn gisatul aw image am moom neen na Aïcha Ba dafa toll woon ab diggante ci ay information moom neen na Aïcha Ba daa dinay wasin aw doomam ñu koy ñaanal suñu borom ànd ak barke xéewal muy doom joojee nga xam ne wuyu si na ko ñëw ci jamono ñu ngi koy ñaanal wërsëg gu yaatu ànd ak moom keneen ki nga xam ne jot na bànneex moo animatrice bi ñuy tuddee Lani Nguer di may borom kër léegi nag moom animatrice bi la dégg na madame Aydara alxayri jub na ci ay mbir ñu koy ñaanal sëy bu barkeel te ànd ak tawfeex Pape Alé Niang nekkul ci tawfeex Pape Alé Niang ca prison si bi xutaan gëmu tëdd ci la daal xam le ne damay def grève de faim bi mu waxee grève de la faim boobee nga xam ne dana ko jàpp moom Pape Alé Niang daf ca préciser woon teg ca ne soxlaw ma benn ndimbalu ñi nga xam ne ñooy infirmière yi nekk fii ci kaso wala sax beneen wu médecin bu dul sama médecin personnel man Pape Alé Niang soxlaw ma intervention garde pénitentiaire yi lijjanti ma bu ñu ma faale sama grève bi ma nekke nag fii bàyyi wuñu ma ma génn fi ma nekke duma ci génn te du ma ko bàyyi benn yoon jabaram moom Pape Alé Niang dem na seeti ji jëkkëram bu mu génnee li mu wax lu leer la nee na sama jëkkër fekk naa ko fa mu nekk waaye jamono ji état de santé am dafay gën di gàll guuse Pape Alé mënul dox bu baax Pape Alé Niang mënul wax bu baax ndax xiif gi nga xam ne mu ngi koy xiif ba noppi itam boole kook ñàkk wér-gu-yaramam loole mooy li tax nag maa ngi sàkku ci ñi nga xam ne ñoo fare ci national fare ci international nañu xib bi seeni gët te xool ci situation situation boobu le nañu xool bu baax a baax jamono ji la Pape Alé Niang la muy dund bis bu ko fa dara xuree bis bu ko fa dara jotee maa ngi koy jiñ état bu Sénégal seen responsabilité nañu ko teel a jël nañu teel a aar balaa yëf di ëppi loxo liiraam ma ngay jëm ca ba kon nag wax naa leen li xew Pape Alé Niang jamono ji la nekkul ci jàmm waajul bay nekk ci jàmm Ahmed Khalifa Niass gën naa dugal Ousmane Sonko moom Ahmed Khalifa Niass ca face to face bi nga xam ne Aïssatou Diop Fall daf koy faral di amal moom Ahmed Ousmane Sonko ak Adji Raby Sarr nee na Ousmane Sonko moom moo jug demal boppam ba fa nga xam ne moom la ñuy woowee rafet te neex muy suite beauté loolee lay tekki moom mi nga xam ne moo di Ahmed Khalifa Niass nee na gannaaw ba moom mooy ki fa dem ba noppi itam daan ne maa fa dem waaye ga mu ca teg amu fa woon place maanaam ci gàttal Ousmane Sonko moo dugal boppam moo génne boppam dem ba fa nga xam ne bàyyi na ay soxnaam dem foo xam ne ñu ngi koy tuddee neex taraf moom Ahmed Khalifa Niass kàddoom yooyu nga xam ne jot na koo yëkkati ne ci loolee neexu leen loolee safu leen te itam loolee bagaju leen kenn ku ci nekk ak lan ko ca yekk kenn ku ci nekk ak lan ko waxal ca commentaire ña ca des naan ko wax na dëgg Ahmed Khalifa ña dem na sax bay indi ay ayat alquran yoo xam ne suñu borom dafay wax suñu digganteeg suñuy soxna ak la ñu war a séq ak ñoom ci mbirum payoor ak la ca aju bu ca amul yool mën na caa dugg moom Ahmed Khalifa Niass kàddoom yooyu mu yëkkati tax nañu bëree bëri naan ko kawteef li nga wax ëppati na jaana wàcc mbokk yi kenn du lëndëm di taal làmp bu ñuul lumière bi feeñ na sëriñ seex as barxaama borom li jaaba nekk ku yàlla baaxal ci wàllum xam-xam kenn naa tableetul ni moom mooy sëriñu Real de Madrid waaye tamit di ñaanal leen ki nga xamante ne mooy équipe nationale bu Sénégal coono jeex na jaaxle jeexati na yéen ñi doon wër lu baax te gisoo leen ko dal leen a jàmm ci sëriñ seex as barxaama borom li jaaba yow mi cat sonal ba loo dugg doo ci am ndam wala sax say mbir daal di dëgër loolu gaawal gaaw dem seeti sëriñ seex as barxaama borom li jaaba yow mii di wut wala sax ngay tukki mu daal di dëgër loolu yow mi ab ba amagoo borom kër wala sax amagoo soxna gaawal gaaw dem seeti Serigne Cheikh Ass Barxaama borom li ba yow mi bëgg a seetlu baa sax li si xaar foo mënti nekk si àdduna bi gaawal gaaw contacter Serigne Cheikh Ass Barxaama mu daal di leeral say mbir te lépp koo teg si alxuraanul karim Serigne Cheikh Ass Barxaama borom li jaaba dafa taxaw temm ngir dimbali jaam ñi gaawal gaaw contacter Serigne Cheikh Ass Barxaama borom ba jaaba si 77 219 52 58 wala si 77 882 24 77 wala it si 77 982 55 40 ak Serigne Cheikh As Barxaama borom li jaaba dimbali jaam yi mooy suma aaj.